wa ala aalihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim e, bokki jullit yi fi daje di góor ak jigéen mag ak ndaw noo ngi ziyaara ñépp di ndokkeel ñépp di baalu àq ñépp di baal ñépp àq di ñaan ci yàlla yàlla na yàlla boole ñu jégal waxleen leen noo ngi jël nuyoo mbooloo mépp di ko teg ci loxol sunu kilifa e di sunu sëriñ sëriñ Ibrahima Seck Talaqaar mu jàllale ko ci mboolem ñi fi nekk ñépp ci ay góor ak i jigéen waaye yóbbul ñu ko ci sunu waajur Baye Sëriñ Canaba Baye Sëriñ Xasan Seck yàlla na yàlla dollee guddal fanam te yokk wéram wax leen amin et la chaque amul sikki sàkk ci nii kenn ku ne xam na li ñu fi dajale tey mooy fàttaliku gan àdduna ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak façon ba ñu koy defee ki ñuy fàttaliku nag incha allahu danañu dugg ci moom bu ñu àggee ca waxtu wa waaye li ñuy njëkk a def mooy wax leen ni programme bi nii lay demee incha allah danañu jox ñi ngeen xamante ni ñooy jàng ibnu muhayib bi di sëriñ Adama ak euh, sëriñ Cheikh Tidiane ak sëriñ Ibrahima ak ñi ñu àndal une heure mooy jot suñu jàngee ibnu muhayib incha allah une ba trois heures mooy ñaari waxtu su ko defee ñoom dinañu tëj bu ñu daaneelee ibnu muhay bi ñu doon jàng ñu jël ci lenn nat rek jox ko oustaz xaar mu leeral ko incha allah su àggalee ñu jox sëriñ bi nag mu ñaanal ñu ba ngi dajawaat fi ak jàmm incha allah kon ñu ngi ñaan ñépp nañu déglu te dal e barab bi mel na ne lu xat waaye bu ñu yaatalee xol yi rek léegi mu daal di féex kon na ñëpp toog te dal insha allahu taala borom téere bi nee na yafuuzu bihi lmusxi lahu walmuhaddisu bu ñuy jàng ibnul muhayib ki koy jàng ak ki koy déglu ñoom ñaar ñëpp borom bi da leen di may ak texe texe googu yàlla nañu ko yàlla defal ci barkeb guddi gi bi jaahi nabil muxtaar sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon ñun ñëpp nañu bokk jàng salaatal faatihi nañu jàng salaatal faatihi def ko àddiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam benn salaatul ñun ñëpp nañu ànd ñu jàng ko def ko àddiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jox nag bokk yi ñu laa di ubbi aoudu billahi min alsheytani irrajim bismillahi irrahmani irrahim na ñëpp ànd jàng ko allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatixi lima ugliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله اللهم صل على محمد سيد البشر وسفيع المستفعين صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى في البشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسمع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسلم وصفي المصطفى بالباخرين اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر صل على محمد سيد البشر وشفيع المشفع في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصفع في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسلم وشفيع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المسافع في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر عليه وسلم وشفيع المسافع في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر شفيع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد الرسل وصفي المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى المغفر اللهم صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى في المغفر اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصفع في المغسل صل على محمد سيد البشر وصفح المصطفى في المعصر اللهم صل على محمد سيد البشر محمد أهل البشر وصفي المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسبيع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر الخلفاء في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى في المحشر اللهم صل على محمد سيد البشر وسبع المصطفى في المحشر صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى في المحشر اللهم صل على صح مولدي بنجم الهوى في المصطفى صح مولدي فما زلت فيه ذا هوى متجدد فيا من له قلب لأوصافه صدي خذوا في امتداح الهاسم محمدي عجائب لا تنفك تنمي وترسخ اللهم صل على محمد مدائح لا تعد الحقيقة كلها مدائح لا تعد الحقيقة كلها أرددها ما عيت لست أملها مديد علينا في القيامة ظلها حمائل من عرس الجنان يدلها كمان لسانا بالثناء مدمخ اللهم صل على محمد خير البشر صلى الله عليه وسلم وسفير المصطفى بالحق الذي ليس ينكر هو القول بالحق الذي ليس ينكر وما زاعت من واسه المرء يذكر وقدر رسول الله أعلى وأكبر خليل حبيب في الولاد مطهر جليل مهيب في سباب مسيخ اللهم صل على محمد سر البشر صلى الله وسلم وتقي المصطفى فخرنا به حقا على كل أمة فخرنا به حقا على كل أمة ظللنا به في نعمة أي نعمة مثابة إحسان ومطلع رحمة حزانة إلهام ومعدن حكمة ونعم علوم بالهداية يندخو اللهم صل على محمد سيد المسائل سبيع الورى والكل بالخوف يرعد سبيع الورى والكل بالخوف يرعد إلى الله يسعى في الجميع ويخفد ويعرفه ذاك النبي محمد خطيب لرسل الله في الخسر سيد تتيه به الدنيا وأخرى وبرزق اللهم صل على محمد وسلم وسبح المصطفى بما حسام مداء ليس شيء يرده وسام مدى إن لي سسيء يرده وسخص بهاء كل قلب يوده وبحر عتاء ليس للبحر مده حدام بغار الغيب بأسا تمده يطهر أدناس القلوب وينفخ اللهم صل على محمد عليه وسلم وصفي المصطفى في القاصر أخل له الله الغنائم وحده أخل له الله الغنائم وحده وخيره فاختار أن كان عبده وبالجند من أهل السماء أمده ختام نظام لا نبوة بعده بسرعة كل سرائع تنسخ اللهم صل على محمد شر البشر عليه وسلم وسقي المصطفى في المحشر أصاب به الله المرامي إذ رمى أصاب به الله المرامي إذ رمى وساء به أن يعمي الحق فاحتمى وجاء أخيرا سابقا عن تقدما خلت مللا تهدي القلوب من العمى وملة تهدي وأعلى وأسمح اللهم صل على محمد اللهم وصحب المصطفى في المغفر ودائل أندى وقوعا من الندى فدائله أندى وقوعا من الندى زوابله مسخوذة لمن اعتدى سمائله معصولة لمن اجتدى ولائقه غلوية البأس والندى فما سب إلا و... ويسدي ويصرخ اللهم صل على محمد صلى وسلم وسمي المصطفى نفوس الهدى أدحت وهو سبة نفوس الهدى أدحت به وهو سبة وللوصف والموصوف منه محبة فلله منه وسمائل عزبة حسيب فناء الجود والأرض جذبة ركاب الأماني في زراه تنوخ اللهم صل على محمد وسلم المسرين تمذهب بالإحسان أكرم مذهبي تمذهب بالإحسان أكرم مذهبي فعم به ما بين سرق ومغربي فلله سيب من نداه كصيبي حسيب فناء الجود لا كف مطلبي ترد ولا وجهه تياج توبخ اللهم صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى في المحشر قريب المدى للناظرين بعيده قريب المدى للناذرين بعيده سريف نمته الليل على جدوده وهيد وآلاف سماء ينرده حميس وأملاك البلاد عبيده وأقتارهم بالزور منه تدرخوا اللهم صل على محمد

وإذ قصد الأخرى وصوب نحوها أتى قطوة لم تبلغ الخلق شهوها فنحن بها دون البرية تبزخ اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم وصفي المصطفى في الماء طاعة فلله عبد من أحاتته طاعة أوامر مولاه لديه مطاعة ستبدي مزاياه العلية ساعة حبيئته عند الإله سفاعة لأمتي والجاه يبني ويمسح اللهم صل على محمد سيد المسائل وسلم وتربيع المصطفى في المعسل أجل الورى من فات منهم ومن بقي أجل الورى من فات منهم ومن بقي وفي كريم لا يخيس بموثقي جدير بصدق الحب من كل متقي خليل بكل المدح من كل منطقي رسول بمسراه دنو يوبخه اللهم صل على محمد سيد المسائل أعتد أسلس مقودي له أعتد الأيام أسلس مقودي وأزعنت الأوسان بعد تمردي فكم منسد في ذكره ومرددي xabat naaru iblisin bi nuuri muhammadi fa walla ala aqaabi wa huwa yasraxu allahumma salli ala muhammadin sayyidil bashar wa safiil mustafaa fil mahshar bi xalawal arzaq fi zilli rumxihi أبيحت له الأرزاق في زل رمقه فلاذ أبو سفيان منه بصلحه وذلت بنصر الله ثم بفتحه حفافيس أهل السيرك تعسى بصبحه وهامهم ترا بكفيه تصدق اللهم صل على محمد سيد المسائل وسقي المصطفى بالمعسكر تنافت قوة ومبرة لنا فتدلى قوة ومبرة وقد قال قوم عاين الله جهرة ولا غرو فهو الحب والقل أسرة خسائسه فاتت يد العبد كسرة ولو أن من في الآد يملي ويصلح اللهم صل على محمد خير البشر وسلم وشفيع المصطفى في المحشر ومن مثله في العالمين جلالة ومن مثله في العالمين جلالة هو اللب وعدد من عداه نحالة أخالت له العادات ربطا إخالة حروفا كأمثال النجوم دلالة تناقلا سيب ثقات وصرخ اللهم صل على محمد خير البشر سفى كل أدواء القلوب بطبه فرد إلى تنزيه كل مسبه وإذ بان لي مقداره عند ربه ختمت على قلبي بتابع حبه ها أنا أمل قلبي وأصبح اللهم صل على محمد تجري الصلاة أجلهم جليل أناس المصطفى من أجلهم أتاهم بعلم الواحي نفطا لجهلهم فلما بدا لي أنه أصل فضلهم عزيز بمدح سيد الناس كلهم عسى روعتي يوم القيامة تفرح اللهم صل على محمد وقلبي ما سلا سلا قلب من يسلو وقلبي ما سلا وعن كل شيء ما خلا حبه خلا يعز علينا أن نعيم وترحلا حفاف المتايانا وهو نسم الفلا وليس لا إلا الحقيق منوخ اللهم صل على محمد سيد الوسلام وصحبه المصطفى في المعشر على كل سب آن يموت بوجهه على كل سب آن يموت بوجهه نزوعا إلى قبر النبي وقصده دهدني الليالي بالدواهي لفقده هبت زماني والمكان ببعده فيومي عام فيه والصبر فافسقوه اللهم صل على محمد سيد البشر وسلم ودمع المصطفى بالمقصد بالله لا بالناس ترجى جوائزه والإملاء وخير العالمين محمد ولله لا بالناس ترجى جوائزه وسلم والإملاء وخير العالمين محمدا وبالله لا بالناس ترجى جوائزه ولملا وخير العالمين محمد وبالله لا بناس ترجى جوائزه ولملا وخير العالمين محمد وبالله لا بالناس ترجى جوائزه لسان ولمنا وخير العالمين محمد وبالله لا بناس ترجى جوائزه ولمنا وخير العالمين محمد ألا فاذكروا المختار تهزو بخيره ألا فاذكروا المختار تحزوا بخيره وفي كل قصد فلتسيروا بسيره وإن تشتروا نفع الكلام بضيره دعوا الامتداح المصطفى مدح خيره فذكر رسول الله أعلى وأمجد اللهم صل على محمد ndeysaan بذكر رسول الله اسمو واعتلي بذكر رسول الله اسمو واعتلي وقلبي إليه بسبابتي يستلي وليس سواه مطلبي ومؤملي دليل الورى والليل بالصبح ينجلي شفيعهم والنار بالنور تحمد اللهم صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى شك فيه حين يذكر أفضل فمن شك فيه حين يذكر أفضل تهم به أخشاؤه وتقلقل وفيه لنا من لوعة الشوق سلسل دواء بأدواء القلوب موكل فمن شك في الإبراء فالحس يشهد اللهم صل على محمد خير البشر وصفع المصطفى فمن شك فيه حين يذكر أفكل فمن شك فيه حين يذكر أفكل تهم به أخشاؤه وتقلقل وفيه لنا من لوعة الشوق سلسل دواء بأدواء القلوب موكل فمن شك في الإبراء فالحس يصد اللهم صل على محمد سيد المسائل وسقي تمسك بالوثقى من الحق عروة تمسك بالوثقى من الحق عروة فأرسله مولاه للحق قدوة وحين ستى بالإفك والزور سدوة دعا الثقلين الإنس والجن دعوة إلى الحشر في أسمائهم يترددون اللهم صل على محمد خير البشر وسفيع المصطفى في المعاشر دعاهم فلبى من عددوا علاقته دعاهم فلبى من عددوا علاقته وقد أنا من سكري لجاجي إفاقة ومن لم يجب طوعا فللسيف طاقة دواء الهوادين عصت مراقة بعذب من التوحيد لا يتقصد اللهم صل على محمد سيد البشر وسمع قريب وإن شتات إليه المفاوز قريب وإن شتات إليه المفاوز أهبته من سر النفوس غرائز فطوبى لمن أدحى به وهو فائز ديانته ستر من النار الحاجز فمن دل عنها في العذاب مخلد اللهم صل على محمد سيد المسلم ديسان وزعبي المصطفى مخايله أبها من الشمس قرتان مخايله أبها من الشمس قرتان شمائله كالشهد طيبا وخبرة فدائله كالرود حسنا وندرة دلائله كالشوب نورا وكسرة فلا الزور يستهوي ولا الحق يجحد اللهم صل على محمد سيد المسائل مجلسا وتربيا وصبايا بالمعاشر بنى بنية لله من أعظم البناء بنى بنية لله من أعظم البناء تهات بأسوار من البيد والقنا فلله ما أرسى ولله ما بنى دجى الشرك جلاه عن الدين والدنا هلال بالأعلاء الهدى يتوقد اللهم صل على محمد خير البشر تكن في دفاتري أتى بعلوم لم تكن في دفاتري شهادتها لم تعترف بتهاتري فلله ما للمصطفى من مآسري دللنا بأجمعين ونص تواتري على أنه بالحب والقرب مفرد اللهم صل على محمد سيد البشر وتقي المصطفى بالمعاد قصال قداء بجمعه هو الفرد قد قصال فداء بجمعه يهن فؤادي للوقوف بربعه عسى الدر من قلبي يزاه بنفعه دائمه التي استقلت بشرعه بها يسد الآوي إليه فيسعد اللهم صل على محمد سيد الوسائل ليس وتقي المتبعين بالمعصية ورثنا الهدى عنه فاكرم بإرسه ورثنا الهدى عنه فاكرم بإرسه فبنصره أفنى الحياة وبسه فكم تاب من قلبي به بعد خبسه درى الناس ترا سيقه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس حسد اللهم صل على محمد وسلم وسلم أحاسده متئن نعيشك أنكد أحاسده متئن نعيشك أنكد فها هو في الدنيا وفي الدين سيد يقاد به جيش ويعمر مسجد ده الشرك منهما رفي مهند ورمح رديني وسام مسهد اللهم صل على محمد سيد البشر وسقي المصطفى في المعشر فكمنة للمشركين وأهة فكمنة للمشركين وأهة وقد هد من بنيانهم كل ردهة يخربها في لحظة صنع برهة دفعنا به عنا دجى كل شبهة إذا ابتدح البرهان فالإفك مفقد اللهم صل على محمد لسان المسلم لسان وسبق المصطفى تخلص للتبليغ عن غير فهة تخلص للتبليغ عن غير فهة وللحق والتحقيق من غير سبهة ولما تناهت بطعم وفكهة دخلنا به في الدين من كل وجهة فكل سبيل فيه أحمد يحمد اللهم صل على محمد وسلم خير المساء وصحبه المصطفى في المعشر هو الملهم الموحى إليه المنبه هو الملهم الموحى إليه المنبه فلا لب في الألباب يشبه لبه وإذ جيء بالتخيير فقربه دنا ليلة الإسراء ممن أحبه وسانيه روح القود سوى الناس هجد اللهم صل على محمد لسان البشر ومهانته تواد على عن زيلة ومهانة وقام بحق الله دون استهانة فأدناه منه حاملا لأمانة دنو واستفاء لا دنو ومكانة وقد كان في حالاته ليس يبعد اللهم صل على محمد ليس من كل آفة تخلص بالتطهير من كل آفة ورق فؤادا لم يعب بكشافة فأدناه تخصيصا له بأخافة دنو واصطفاء لا دنو ومسافة وقد كان في حالاته ليس يبعد اللهم صل على محمد شهد المشاعر اقتدائه إذا التهبت للشوق نار اقتدائه نقربه بالذكر حال انتزاهه ونمده والقلب توع ارتياحه دوام المنى في ذكره وامتداهه فاتنب فقد وافى كما ليس ينفد اللهم صل على محمد

وقلبي بنار الشوق يحمى فيحتمي سابكي إذا أدفى تدمعي من دمي دموعي لعبد عنه كالقطر تنهمي ولا تب إلا القرب إن كان يسعد اللهم صل على محمد سيد الشباب وسبح المصطفى تقاسر واسبي عن كريم صفاته تقاسر واسبي عن كريم صفاته لفضل سجاياه وطهرة ذاته ومن زايع الدرم لفي عرساته دابت على الإيراد من معجزاته ومن ذا يكيل البحر والبحر مزبد اللهم صل على محمد للمساء ردته كف سماهه لقد خاب من ردته كف سماهه وداع سلاه خارج عن سلاهه فمن هاب عنه فيأس من فلاحه دواعي التقى مجموعة في ابتداهه والإملاء وخير العالمين محمد اللهم صل على محمد وبالله وسبع المصطفى وبالله لا بالناس ترجى جوائزه والإملاء وخير العالمين محمد الله لا بناس حجاج وعائزون خير الخلق فالعود أحمد أعز ذكر خير الخلق فالعود أحمد وللقلب في التذكار وصل مجدد واقسم على حق ولست تفند يمينا لقد حلى نبي محمد من الحب والتشريف في رتبة العليا خير الخلق فالعود أحمد عن ذكر خير الخلق فالعود أحمد وللقلب في التذكار وصل مجدد فأقسم على حق ولست تفند يمينا لقد حلى نبي محمد من الحب والتشريف في رتبة عليا اللهم صل على محمد السلام وسقي المصفين في المعشر أما والذي أعلى على الخلق رسله أما والذي أعلى على الخلق رسله لا أعلى عليهم أجمعين محله فأصبح لا مخلوق ينصر فضله يقر له بالفضل من كان قبله من الرسل إلهاما من الله أو وحيا اللهم صل على محمد سيد المشاعر رسول تزيا بالفدائل بزة رسول تزيا بالفدائل بزة حمى للدنا والدين ذاتا وحوزة يخف ارتياحا لسماه وهزة يقصر عنه الناس هو النصر عزة ولو أن ذا أعيا ولو أن ذا أعيا خير يفيد جداهما له راحة خير يفيد جداهما ندى وهدى أحيا القلوب سداهما فلا مدرك في الخاص لتين مداهما يداه غمام أو شفاء كلاهما فقد نقع الأزمة أو استنقذ العمياء اللهم صل على محمد سيد المساء ورفيع المصابين بالمعصية فكم راه في ذات الإله وكم غدا فكم راه في ذات الإله وكم غدا يقود من استعصى ويقمع من عدا يهاهر منه الباء سيلتمس الندى يهاب ولا ليس العرين إذا بدا ويرجى ولا غيث الغمام إذا أحيا اللهم صل على محمد خير المسلم يريح من البلوى يزيه عن الردى يدل على التقوى يسوق إلى الهدى يتب من الشكوى يسول على العدا يفوق الورى ذاتا ويقهرهم مدى ويبهرهم نورا ويفتنهم زنا اللهم صل على محمد سيد المسائل وصحبه المصطفى يدل على التقوى يسول إلى الهدى يتب من الشكوى يسول إلى الهدى يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبهرهم نورا ويفضلهم زيا اللهم صل على محمد خير الأسلام زادا يدل على التقوى يفوق إلى الهدى يتب من الشكوى يسول على الهدى يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبهرهم نورا ويفضلهم زيا اللهم صل على محمد الذي أزهر الردى يدل على التقوى يزول على الهدى يطب من الشكوى يسول على العدا يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبهرهم نورا ويفضلهم زيا اللهم صل على محمد من الأسلام الحسن وشفي المصطفى يريه من البلوى يزيه عن الردى يريه من البلوى يزيه عن الردى يدل على التقوى يسوق إلى الهدى يتب من الشكوى يسول على العدى يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبهرهم نورا ويفضلهم ذيا اللهم صل على محمد سيد البشر يريه من البلوى يزيه عن الردى يريه من البلوى يزيه عن الردى يدل على التقوى يسوق إلى الهدى يطب من الشكوى يسول على العدا يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبهرهم نورا ويفضلهم ضياء اللهم صل على محمد سيد المسلمين يزيه عن الردى يريه من البلوى يزيه عن الردى يدل على التقوى يصول إلى الهدى يتب من الشكوى يصول على العدى يفوق الورى ذاتا ويسبقهم مدى ويبصرهم نورا ويفضلهم ضياء اللهم صل على محمد بنغو وسقي المسمعين إذا المرء إذا المرء لم يزدى من الدر منفذا إذا المرء لم يستع من الدر منفذا ولا زبي من باسي وتعوزا أصاب مجيرا من أذى الدهر منقذا يجود بلا من ويقضي بلا أذى فلله ما أحبى ولله ما أحيا اللهم صل على محمد نيزان المسيح وسقي المصطفى في العسل فكم ترهة قد زادها ومعرة فكم ترهة قد زادها ومعرة ومن فرحة قد قادها ومسرة وكم بسطا منه لدى كل عسرة يمين نوال تنور أسرة فأهلا وسهلا بالصباح وبالسقيا اللهم صل على محمد سيد المساء وشفيع المصطفى في المعشر فلله مدح فيه كالمسك يعبق فلله مدح فيه كالمسك يعبق ينير به فكر ويعزب منطق ولله صدر منه بالعلم مسرق يرى ما وراء الغيب والجفن مطرق ولا عجب فالقلب ممتلئ وعيا صل على محمد نسم بأمر المصطفى وبشأنه فاعظم بأمر المصطفى وبشأنه يفيد الهدى من قلبه ولسانه يعرفه بالشيء دون عيانه يقين يريه الأمر قبل كيانه فيمضي على تقيه الأمر والنهي اللهم صل على محمد سيد المشايخ ندى دينا له وسجية أدى بالهدى قولا وفعلا ونية وفي كل بر فاعتقدها قضية يزيد على كل الأنام مزية فقدمه إجماعا عليهم بلا سنيا اللهم صل على محمد تقدم أجل الخلق من كل عالم تقدم أجل الخلق من كل عالم معلمه بالفات لأبقى مهالمي بناها جليل القدر من آل هاشم يلوذ به في الحاس يمنع آدمي فيوسعهم برا ويعصبهم رعيا اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى مهديه من كفور وملحدي سوى مبهديه من كفور وملحدي فهم للردى والكوس في اليوم والغد ونحن بحمد الله في كل مشهد يقينا الرد والبوس حب محمد فلسنا نخاف الدار أصلا ولا طغيان اللهم صل على محمد سيد البشر لمولانا وحسن ثوابه وانفعنا لمولانا وحسن ثوابه وذكرنا بالخير وهو لما به وما زال في الدنيا وعند مآبه ينيح أولو الحاجات ترا ببابه فيلقون أمنا في الممات وفي المحيا اللهم صل على محمد

ولله منه الواس وقد فاه نصره يتيب على طول تعاهد ذكره فننشقه مسكا ونطعمه أريا اللهم صل على محمد سيد البشر وصفي المصطفى منه عطفه وسماهه ولله منه عطفه وسماهه ولله نوم قد نفاه انتزاهه صحيح مليح جيده ومزاهه يهز قلوب المؤمنين امتداهه فنحن اشتياقا لا نموت ولا نحيا اللهم صل على محمد في المسيح وشفيع المصطفى رغبة فيه تشاب بهيبتي لنا رهبة فيه تشاب بهيبتي ورب حضور في مواتن غيبة ومهما رجونا الفلح من بعد خيبة يهب علينا الروح من أرض طيبة فنهتز لللقيا ونخنع بالرياء اللهم صل على محمد سيد البشر وشبه المصطفى لنا رغبة فيه تشاب بهيبتي لنا رهبة فيه تشاب بهيبتي ورب حضور في مواتن هيبتي ومهما رجونا الفلح من بعد خيبة يهب علينا الروح من أرض تيبة فنهتز للقيا ونخنع بالرياء اللهم صل على محمد سيد البشر وسقي المصطفى في المعصر إلى الله يشكو باس قلبي ووده إلى الله أشكو باس قلبي ووده لقول حبيب لا أشاقت بعده مناي من الدارين لحياه وحده يتيم نكاح الساب عنه وبعده وهل يلف الأزمان أمن يقتضي الرياء أسكب قلبي ووجهه إلى الله أسكب قلبي ووجهه لبعد حبيب الله أزاقت بعده مناي من الدارين لقياه وحده يضيق نتاق الصبر عنه وبعده وليلف الأمعاء أمن يبتغي الرياء اللهم صل على محمد سيد البشر إلى الله أشكو باس قلبي ووده إلى الله أشكو باس قلبي ووده لبعد حبيب الله أشاقت بعده مناي من الدارين لقياه وحده يضيق نكاح سابع عنه وبعده وهل يلف الازمان أمن يبتغي الرياء اللهم صل على محمد سيدنا قد مسنا طول الفراق بنسبه لقد مسنا طول الفراق بنسبه فسرنا نحب الموت ضيقا بكربه فيا ليتنا متنا احتراما بحبه يسير علينا الموت في جنب قربه ومن قصد المحبوب فلم يسأل البقيا اللهم صل على محمد البشر وشفع المصطفى عليه المعشر لقد مسنا طول الفراق بنسبه لقد مسنا طول الفراق بنصبه فزرنا نحب الموت ضيقا بكربه فيا ليتنا متنا احتراما بحبه يسير علينا الموت في جنب قربه ومن قصد المحبوب لم يسأل البقيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأشواق يا بدائه يشق علينا العين سرور لقائه إذا الدين لم يكمل فلا تعنت الدنيا صل على محمد خير البشر وصفع المصطفى فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأشواق يعيا بدائه يشق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر واختيار به وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يا بدائه يسوق علينا العين سترنا لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر يا بدائه يشق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا تانت الدنيا اللهم صل على محمد سر البشر وصف المصطفى فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق يحيى بدائه يشق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق يا بدائه يسق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد البشر هو شفيع المصطفى فيا ربنا في آرضه وسمائه ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وصل الأسواق يعيا بدائه يشق علينا العين دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وصفي عن فيا ربنا في آرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يحيى بدائه يسق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا فرون على مورد أبنجر وصحيح سلسلين يمن السنة للحجة وصغير المزفعين فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق يعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا صل على محمد سيد بشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإن وذو الأسواق يا بدائه يسق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا سيد البشر ليسان ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وجميع المتقين بالمحشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضي وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق يعيا بدائه يسق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فما كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق يعيا بدائه يزق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد المسلمين في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يحيى بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المتقاعد بالمعشر فيا ربنا في آرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يا بدائه يشق علينا العين سرور لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المزفر في المحشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضي وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يحيى بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وصل على محمد سيد المرسلين لسان وشفيع فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باستغائه فإنا وفي الأسواق يعيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا صل على محمد سيد waaw waaw fa yaa rabbana fi ardihi wa samaa'ihi fa yaa rabbana fi ardihi wa samaa'ihi amitna ala tasdiqina bi istifaa'ihi فإنا وذو الأسواق يا بدائه يسق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا وصل على محمد سيد البشرين وشفيع المصطفى في المحشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضي وسمائه أمتنا على تصديقنا باستفائه فإنا وذو الأسواق أحيا بدائه يشق علينا العيش دون لقائه إذا الدين لم يكمل صلاة في الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المصطفى في المحشر فيا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يا بدائه يسق علينا العيس دون لقائه إذا الدين لم يكمل فلا كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق يا بدائه يسق علينا العين سرور لقائه بتبديل لم يكن على كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد البشر وشفيع المستقبل يا ربنا في أرضه وسمائه فيا ربنا في أرضه عهده وسمائه أمتنا على تصديقنا باصطفائه فإنا وذو الأسواق أعيا بدائه يشق علينا العين سدون لقائه إذا الدين لم يكمل كما كانت الدنيا اللهم صل على محمد سيد السلام والشفيع المتبع في المحشر لله لا بالناس ترجى الجوائز والإملاء وخير العالم لمين محمد بالله لا بالناس ترجى جوائزه لسان وبالله لا بالناس ترجى جوائزه ولله خير العالم نبينا محمد ndeysaan cey amina muhammadu wa billahi la binnaasi turja jawaizo walimla wa xayruna الأمين محمد وبالله لا بالناصر يا جوارز نيسان وبالله لا بالناس ترجى جوائزه والإملاء وخير العالم نبينا محمد وبالله إلا بالناس ndeysaan <laughs> dëggal lool rek wa billahi la binnaasi turja jawaayiso walim la wa xayrul لم يكن محمد وبالله إلا بالناصر بجزاء الله ولله وخير نبينا محمد وبالله لا بناصر ترجى جوائزه ولله وخير العالم الأمين محمد وبالله لا بالناس رجال ndeysaan لمن محمد وبالله لا بالناس جوائز ليس إلا وقيل العالم ndeysaan ndeysaan وبالله لا بالناس جوائزه ولله وخير العالم الأمين محمد وبالله إلا بالناصر ججائز بنسوي ليس والإبلاء وخير الأمين محمد وبالله لا بالناصر ترجى جوائزه والإملاء وخير العالم لمين محمد نسان لا اله الا الله وبالله ما للناس تلقى جوائز أها ولله خير العالم لمين محمد لمني واي ها وبالله لا بالناس ترجى جوائزه ولله وخير العالمين محمد ndeysaan wa billahi la binnaasi turja jawaiso walimla wa xayrul alamina muhammadun macha allah baarakallah yal nañ ko teewaat yu bari ndeysaan ndeysaan boobu boobu boobu wàcce na bala waaw yal nañ ko teewaat yu bari waaye am na ñoo xam ni moom waxtu wi ñu nga naan ma adama allahu mawjudan wa awjada ma duman salatan dawaman laysatan mawlaya salli wa sallim daiman abadan وجاكوا ما أعدام الله موجودا جد معدوما صلاة دواما ليس تنفاسس السماوات والأرضين مع جبل ملء السماوات والأرضين مع جبل والفرش والعرش والكرسي وما حسن Listen. فجاكوا ما أعدم الله موجودا وأوجد ما دوما صلاة دواما الله موجودا دوما صلاة دواما ليس لسان دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ما أعدم الله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 dañuy bëgg a jox oustaz xaar mu am lu mu firi ci ibnu muhayib fa mu doon jaare insha allahu taala waaye dafa am tuuti lu ñu bëgg leeral léeg-léeg nit nekk ci dara di ko def ba mu yàgg am loo xamante ni yëg-yëg lay doon bu yàlla def ca moom tax mu indi loo xamante ni ñëpp dañ cay d'accord seen xol féex ca et li sëriñ aadama def du hasard de gis ngeen gàmmu gii ñuy def ibnu muhayib bii ñuy def ci kër sëriñ taalaxaar cosaan li cosaan li burdu la woon Baye Talla ak Serigne Ndiambe Gueye rahmatullahi alayhi ñoo ko doon def ca saal ba ca kër ga bu ñu masaana reer ba noppi ba nit ñu bari seen xel nekk ci tëdd ñu génn ci saal bi daldi fay làmp bi buñ daan jàng burda dañ daan fay làmp bi mooy ku mokkalul bokkoo <laughs> su ko defee Baye Talla ak Serigne Jàmme di dëbbe burda ñi fa nekk ñëpp ànd di awu ba téere bi jeex ñu ñaan ba déwén kon bu ñu jàngee Ibnul Muhayib ba pare sëñ aadama nga laal ci burda loolu lu yàlla xenki walla ci yow macha allah yal na yàlla sàmm leen yal na yàlla barke leen maa ngi tooñ Serigne Alpha bi sëriñ Adama demee ci Mudarla maa ngi gis Serigne bi maa ngi gis Serigne bi ànd ak moom di way ma naan Serigne Alpha xoolal Serigne bi waaw am na ñoo xamante ni bu ñu daanoo <laughs> waaw du ñu yuuxu du ñu du ñu yëngatu waaye ci seen xar kanam nga koy yëgee macha allah yal na yàlla faj aajo yëpp zahiran wa batinan tabaarakallahu su ko defee. Eh, ñu jox oustaz xaar bisimilah moom tam mu laal ci ibnul muhayyib <laughs> السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد الذي حارب الباطل وأيد الحق wa tamasa razaila wa ahya alfadail wa tammama makarima al axlaq wa hada annaasa ila siratin mustaqim sirati alladina ancamta alayhim min annabiyina wa siddiqina wa shuhada wa ala alihi wa sahbihi alladina ihtadaw bihadyatihi wattabacuu ma rasamahum fa daanat lahum almuluku wa xadaat li hadiyatihim al umam wa radiya allahu an cheikh alchuyuux taaj alaarifina mumiddi alawliya cheikhana wa habibana wa murabbiyana cheikh ahmad tidiane sharif wa radiya allahu an almujahidi alakbar alnihriiri alakbar almufaxamu almuazzam maam ahmadou ndaak seek alladi xaaraba wa naadala wa radiya allahu an almaftuxi alayh alkarim alcheikh taala xaar seck kon mbokk yi ñu wax asalaamu aleykum sant yàlla bu di sant yàlla bu baax. di julli ci yonent bi sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. waaye nag di tëbbu ci leeri suñu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Chérif waaye di ñaan yàlla mu jaaraleñu ko nag ci maam Ahmadou Ndaak mi nga xam ni dundam gi yépp daf ko xeexal diine lislaam waaye sëtam bi ko aaral di suñu bàyyi bàyyi taala xaar nga xam ni fu mu nekk diine ñoŋ di jiital ci nuyoo bi ki nga xam ni mooy xalifa bi di suñu baay Xasan set di ñaan yàlla yal na yàlla guddal fanam sëriñ Ibrahim ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di la ñaanal wér ak gudd fan di la ñaanal wér ak gudd fan defe naa mbooloo mi amin ji ci ñii rek laa ko dégg waaye ñun ñëpp ñoo war a wax amin ok sëriñ Ibrahim yàlla na wér yàlla na gudd fan ok barki démb kontaan nañu lool képp koo xam ni bokk nga ci famille maam mutt fa bàyyi baaba Fall ñëpp kontaan ndax ku toll ni Serigne Ibrahima bu jugee ñëw seet si ay taalibeem loolu lu ko gën a rëy amul waaye def na lu loo xam ni rasulullahi noonu la daan def daraan jékki-jékki ba mu yàgg rek mu jug dem seeti benn saxaaba suñu sëriñ Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bokk na ci ay jikkoom mooy daraan jékki-jékki ba mu yàgg rek jóg dem seeti ay taalibeem daan nemmeeku ay sëriñam di faj seeni soxla kon nag bu defee loolu ni sëriñ maxtaar noppal na ma ci lu bari te booba sëriñ maxtaar fekkewu ko kon loolu sant yàlla la waaye sëriñ aada ñi ngi lay ñaanal bu baax ndax téere bii di ibnu muhayyab mooy tëbbuwaayu waa canab ku bokk ca na ba téere boo mën a mën te mënoo ibnu muhayyib yow jaat jaaroo sa yoon waaw pour nga jaar sa yoon faaw nga fexe mën ibnu muhayyib te boroom xam-xam yi nee nañu ku jàng ibnu muhayyib ba mu jeex te loolu du ay caaxaan de lu wér la de ibnu muhayyib ku ko jàngantuwul jàng ko ba mu jeex bañ caa tëb dara wala nga firilu ko ba mu jeex daa gis rasulullah loolu de moom weddiwuma ko moom waaw te nee nañu ku fanaanoog ibnu muhayyab fanaanoog rasulullah kon nag ibnu muhayyab dundal bi koy dundal ci guddi gi ak ay rakkam ak mbokkam ak taalibe yi yal na yàlla fay ko barkent bi sallallahu alayhi wa sallam sëriñ Mamoor Alf ñi ngi leen di nuyu bu baax a baax di wax ni borom guddi gi di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu nit di def di ko defal rasulullahi boo ca sonnee wala nga tàyyi ca xamoo kan mooy sang bi damay wax jikko bu ndaw boo xamante ni bii ndaw na ci wax ko waaye yombul ci jëfet sëriñ Moxtaar mooy koo xam ni foo ko fekk mi ngi bëgg nit ñi yëkkatiku bëggul kenn torox am na loo xam ni ku ko def yàlla nga jàkkaar lool mooy saa boo xoolee nit di jullit nga am yéeneb toroxal ko nga am yéeneb suufel ko xamal ni yaa ngi jàmmarloo ak yàlla subhaanahu wa taala ndaxte rabbuka wa rabbuhu waaxidun ki la bind bind ko kenn la muy yàlla yow mbindum yàlla nga xeeb ko ba bëgg koo soofantal yàlla nee na yaa ngi jàkkaarloo ak man di xeex ak man moo tax yonent bi ku mënoon a yëkkati nit la lu nit suufe suufe soo toogee ak moom da ngay defe yow yaa gën a kawe lan moo tax mooy yonent bi sallallahu foo ko fekk dana fekk nit ci suuf mu yëkkati ko ba mu kawe waaye du fekk ku kawe mukk mu di ko ndetteel sëriñ Maxtaar dafa am ku jàngi sëñ Aada ba mu jàngee lu ko sëriñ bi di jàngal du ko mën a mën ndax xel mi neexul mu yàgg fa lool ku ñëw romb mu dem ba mu yàgg sëriñ bi ni ko yow mag nga léegi sampu kër jot na ci yow te gis naa ni bëgg nga waaye mënoo dama lay ñaanal nga dem taxawali kër waaye ja dem ñibbi ba mu yegsee tasanteeg dëkk ba seen gàmmu ga jot waa dëkk ba yépp ne diw mi jàngi woon ñëw na kon alhamdulillah ren kenn du wut jàngkat tey diw moo koy jàng te kat xel mu naqari moo tax ñu yeewi ko <laughs> waaye benn waay bu mel ni am men buub dégg nag ni diw moo nar a jàng-jàng kii de dinaa ko toroxal ci digg mbooloo mi ba ñëpp xam ne xamul dara <laughs> waaw moom rus naa wax ni munuma ndax waa dëkk bi yëpp nee nañ ko yow yaay suñu doom ndegam ñëw nga jàng yi kenn du ko jàng yow rek a koy jàng sëñ maxtar bis ba ñëw mu sol lu rafet ñëw toog jàngkat yi di jàng am men bu waaj ñëw toog ca kanam di xaar rek ba ñu ni diw la ñu jox jërëjëf sëñ Ibrahima waaye moom mi koy wax ni xamoo dara moom yàlla natt na ko jàng na lépp waaye badal jàngu ko waa ji ni ko nga ni xaw ma dara mu ni ko xamoo dara mu ni ko waaye yow maa huwal badal maa huwal badal luy badal yow waa ji ni tekk loo mën a jàng mën a jàng loo jàngul moom mënoo fexe ba lijjanti ko ni tekk ni tekk waa ji ne ko boo xamul badal al badalu huwa al ismu attaabiu al maqsuudu bin nisbati bila wasitatin boo xamul badal lool mooy badal waa jani teg mu ne ko waa léegi maa hiya anwaaul badal wax ma badal ñaata façon ñoo ci nekk <laughs> waa ko xamul badal nooy xamee anwaaul badal <laughs> mu ni ko badal ñeenti xaaj la dafa am badalul mutaabiq badalul baad min al kull badalul ijtimaal badalul boo xamul badal ñeent yi ñooy xaaja badal benn bu ci ne boo ko xamul nag taxawal ma wax la lan mooy badal sëñ Maxtaar aleykum salaam eh. waa ji mujjee koo eggale ba dal la gàmmu ba gàmmu ga jeex waa gàmmu ga yëkkati ko ne ah suñu waa ji xamoon na ni ku mën a jàng la waa ja waxoon ne xamul dara ni tottu torox ndax lan bëggoon a toroxal nit kon saa boo jógee pour toroxal doomu aadama yàlla subhaanahu wa dina ko wan bunt boo xam ne moo lay waaye rasulullahi moo fekk ku kenn fonkul ku kenn jàppul ku kenn tegul fenn yonent bi yëkkati ko ba àddina yëpp di ko dégg bilal ibnu rabah ab jaam la woon nit ku ñuul kukku la woon waaye rasulullahi moo ko yëkkati ba adduna yëpp amul fenn fooy dem benn dëkk booy dem benn quartier booy dem lu dul danga fa fekk ab bilaal waaw loolu lu ko gën a màgg est am na amul fenn foy dem ci àddina lu dul da nga fa fekk jàkka ju ñuy wax ni bilaal baa ngi nii te bilaal mi nga jóge ci bilaal ibnu rabaax lu may rasulullah yi moo ko yëkkati ba bu kawe ba naar ya sax li bilaal am moom amuñu ko moo tax mu ni boo bëggee gis ku baax boo bëggee gis ku yiw boo bëggee gis ku sell boo bëggee gis koo xam ne fu mu nekk nit ñi yëkkati ko nee na kenn rek la ñu ni ko kan la mu ni mooy sayidil awalina wal axirin sayidina muhammad alayhi salaatu wasalaam te nee na loolu ci ay jikko waaye kenn xamagul yonent bi rasulullahi bala ñu koo xam soxna anta nee na rasulullah bala ñu ko xam. yow Mustafa yow Mate yaa leen gën. wabillahi laa binnaasi turjal jawaa'isu mudlumin ولله فخر العالمين محمد إذا الشمس كورت wa ida nujumu nkadarat wa ida aljibalu suyirat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 ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين

dama bëgg su ma nee la ëf ko nga ëf ko ñëpp dee adduna yam fi waaye na nga xaar ba ma wax la ko nee na bët ya boo ko gisee moo gën a leer moo gën a yaatu moo gën a màgg kaw-kaw waaye nee na gestu sax duma ko def maa ngi jàkkaarloog arash rek jàkkaarloog sama boroom lan moo tax damay ragal gestu yàlla ni ma tasal xew wi na tas ndax àdduna xew la bâche bi mooy asamaan lamp yi mooy jant bi yàlla nee na isa shamsu kuwirat damay toog ba mu yàgg rek ma ni leen démonté sama jant bi nee na ñu démonté jant bi yàlla nee na ma muri asamaan waaye duma ci am yàlla neena na lu waay amoon ak lu mu màgg màgg màgg ñi ngi fi bàyyi yëpp ñëpp a ngi tëdd ci bàmmeel yi nee na ma xool àdduna oto yi kër yi mboolem yu baax yi yëpp mi ngi fi ba tey waaye ku ko yor di nit nekkatu fi ñëpp a ngi ci biir suuf kenn ku ci nekk jugul ma ni malakul mawti xoolal ma kan moo des malakul mawti xool ni ko yàlla ñëpp dee na jibril la fi des mikail asrafil azrail ñeenti ñii ñoo fi des yàlla ni ko ah ñëpp ay dem de man doo nga fii des mu dem jóbbu Jibril Mikaayil yóbbu Israfil yàlla ni ko yow yaa ci des moo tax ñu ni keroog wax da wax joo xam ni ci suñu boroom ni ko su ma xamoon ni dee nii la kon yàlla man du ma jël di rey doomu aadama waaye nag bis ni ki maa ngi wax ni subhaana alxayi alqayuum alladi laa yamuutu yàlla yow dong yaa dul faatu yàlla nee na mu faatu mbooleem loo doon gis aljabaabira ku mag ku ne ñu daan tutu turam soo xoolee gis bàmmeelam buur yi yu neex yu bakkane yàlla nee gisuma kenn wa isal ishaaru uttilat mboolem lu nit daan yor di ko puukare woo ma gis ko muy taxawaalu te kenn moomu ko ndax ñépp dee nañ yàlla nee na ma toog 40 yoo xam ne ñeent fukki at yoo xam ne dara yënguwul dama bàyyi àdduna nekk noonu rek ma xool gisuma sax ngelaw yëngatu ba mat ñeent fukki at yàlla nee na mu neex ma ma ne ku nekk ci biir suuf na génn ma atte jaan yàlla nee na ma taw sama ndox ndox moomu may taw mbooleem ku deewoon yàpp yaram yi suuxoon yàpp yaram yi fënaxoon yax yi jeexoon yàlla nee na bu ma tawee sama ndox mi mbooleem lu ci nekkoon di ay yax di ay yàpp kenn ku ci ne fa nga nekkoon dellu nga fa yàlla nee na bàmmeel yi toj nee na kenn dong mooy ki nga xam ni bu jamono boobu ñëwee kenn du am yaakaar ci kenn moo tax képp kuy màggal di màggal rasulullahi loo ci am ci àdduna xamagoo amagoo dara bu yomal xiyaamee ngay xam ki nga àndaloon mooy kan rasulullahi ni bàkkuwuma waaye yàlla ma ko defal bu bàmmeel yi xaree kenn ku ne boo génnee daa fekk ñaari malaayika yu taxaw di la xaar pour escorter la yóbbu ci yàlla kenn du ñemee jóg kenn du ñemee yëngatu ana awalu naasi xurujan ida buisu ana awalu naasi rasulullahi man dong maay ñeme bu yowmal qiyaamee maay njëkk a génn su ma génnul kenn du ñemee génn rasulullahi nee na sama bammeel mooy xar ma génn taxaw yee Aboubacar yee Omar yee sama xeet ñi ci des doog a yewwu waaye bu ñu yewwoo ba ñëpp taxaw ci seeni i amul kenn kuy ñeme séq benn pas dem ci yàlla subhanahu wa للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من قلبهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما الثلث مما ترك إن كان له ولد fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawaahu fa li ummihi sulus fa in kaana lahu ixwatun fa li ummihi sulus min baadi wasiyatin yuusi biha aw dayn aabaa'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faridatan min allah inna allaha kaana aliman hakima خروجا إذا بعث لا فخر ومن غل yàlla subhanahu wa taala jam ñëpp génn ci seeni bàmmeel ni jonn nag kenn du ñemee yëngatu jam ñépp taxaw kenn du ñemee yëngatu waaye li ci doy waar mooy sëñ Moxtaar bu jaam ñépp génnee taxaw di xaar kenn ñemewul a dem yàlla ni lu waay jëloon te moomoo ko la ko tegal nga war koo yóbbaale lu waay jëloon te moomoo moo xam danga koo sàccoon wala dan koo tiriyande woon lépp loo lekk te moomoo ko woon ñu tegal la ko ni la yóbbaale ko daa gis ñu xaalis bu bari nag xaalis bu bari mu ñu nekk ci ay saaku yu bari nu war ko yenu yóbbaale ndax dañ koo sàccoon daa gis ku yenu terrain quinze sur quinze mu war koo yenu yóbbaale ndax da koo sàccoon waaw daa gis ku yenu quatre quatre ñu ne ko yóbbul da koo jëloon daa gis ku yenu ay zeng <laughs> lu waay jëloon te moomoo ko yàlla nee na bu yowmal xiyaamee dinañ la ko tegal ni la dangay dem ci sa borom yóbbaaleel waaye doo ci yem de yàlla nee na wa ida nufuusu zuwijat waaye bu yeboo ñu bëgg rasulullahi te am yaakaar ci moom xam nga lan moo tax yàlla nee na ay groupe Serigne Talla ay groupe laay def bu yowmal qiyaame wa ida nufuusu zuwijat nee na njaalookat yi dañuy am groupe bu ñuy taxawee nga xam ne groupe bale ñoo daan mooy yàlla ñoom ñëpp ñu boole leen ñoom ñooy ànd di dem lekkkat yi riba yi dañ leen ni boole ñu doon ab groupe war a ànd dem ñi nga xam ni saa bu ñu waxee duñ wax dëgg dañ leen ni boole ab groupe jox leen ab drapeau bind ci ñii ñooy kàcckat yi ñii ci àdduna luñ la wax du dëgg wa iza nufuusu zuwwijat yàlla nee na ñu baax ñi ñu sell ñi ñu yiw ñi ñoom dañuy am groupe boo xam ne ñoom ñooy ànd dem waaye nag nee na bu boobaa kenn dong mooy am taxawaay bu toll mën a jug jékki tànkam dem ci kanamu boromam lan moo tax mooy amul benn bagage bu mu yor bu muy yóbbaale. kenn rek la fala lamamun yuda ilayhi wala zanbu ibnu mooyab nee na rasulullahi dund na ba faatu bàkkaar bu ndaw sax musu bay def bàkkaar bu mag moo tax koo gis mu yor fa loxoy neen yoru fa mbuus rasulullahi la ndax moo amul bàkkaar yaa ngi gis rasulullah yi ma ngay dox ak ay tànkam solul dàll sax di waaxu jëm ci boroomam moom ndong moo ñemee jàkkaarloog yàlla ndax yàlla mooy tudd muntaqimu xalim la tudd adduna xalim moo xam ni lu waay def lu mu rëy rëy yàlla mën na koo muñ xaar yowmal qiyaam waaye nee na bu yowmal qiyaam jotee muntaqimu laay tudd lu waay defoon lu mu tuuti tuuti dinaa la ko fay bis booba وأنا خطيبهم إذا أنصتوا ابن مهيب رسول الله bu ñëpp demee ba kenn ñemewu a wax moom dong mooy wax ndax moom dong moo ñeme wax ak yàlla su waxee taxawaay bi metti na yomal xiyam taxawaay ba dinañu taxaw ba jaam ñi ñoom ñëpp dañu naan ak yàlla buub ñu ñun ñëpp yóbbu ñu safara sax ñu noppalu ndax taxawaay bi yàgg na te metti na laa uqsimu bi yawmil qiyaama wala uqsimu bi nafsil lawaama taxawaay ba kenn dong mooy ñëw wax yàlla ni ko yàlla jaam ñi nee nañu taxawaay bi metti na de dañoo bëgg nga génne atte leen yàlla doog a génn toog pour fas yéene atte jaam ñi bu dul rasulullah yi kenn du toog ndax lan yàlla du jóg nee na waaye bu ñu libee dossier yi ñi war a dem safara ñi war a dem aljana nee na ku am loo bëgg am loo war a wax yàlla ci rasulullah ngay dem mooy lijjant ki war a dem safara mu ni yàlla baal ko mooy lijjanti njaga am na ko dem aljana ba pare waaye fi mu nekk bëgg na fu ko gën a neex mu ñëw ni rasulullah dugg naa aljana de fii baax na de waaye fu ko gën a neex laa bëgg mu dem ci yàlla ni ko diw yóbbu ko fu gën a neex ñu yóbbu ko fa ndax lan rasulullahi sallallahu moo am kattan boobu ci yàlla nee na moo tax saa booy màggal rasulullahi loo ko màggal nanga ko xeeb ndax am na bis boo xam ne bu ñëwee su la boolee ci boppam nga dugg soo ñëwee lu sa mbir critique dina la lijjanti ndax lan ndax sopp gi nga ko soppoon bëgg gi nga ko bëggoon yaakaar gi nga ko yaakaaroon sonn gi nga daan sonn di rasulullahi dem gàmmu def say dépense lépp loo def ngir yonent bi bu yomal qiyaamee loola mën na la yóbbu aljana moo tax yonent bi daf ni saxaaba yi gisoo gars yi ñëpp ñu waaw. waaw waaw. de. gis nga képp kuy gàmm ngir xaalis doo am xaalis doo am yàlla boo bëggee gàmm dangay fexe ba suur ba pare doo ko gàmm moo tax sëñ Maxtaar képp koo xam ne sa xel du dem ci dee doo ko fàttaliku doo def lu baax faw nga jël dee teg sa kanam rek xam ni léegi mën na ñëw dañu am suñu école benn béréb bu mu dendal kilifa ga am ku mu yónni ni ko demal jëndal ma ndékki mu ñëw di jënd ndékki li dégg ñu yuuxoo mu jënd ba pare daw ndakati ki ko yónni ndékki moo gaañ <laughs> kon dee ku ko dul fàttaliku doo def lu baax ku bëgg a raxas sa xol ba mu set wicc ba doo iñaane kenn fàttalikul dee rek loo xëccoo xëccoo bis ñëw yow ma doon xëccoo nga dee wala kan ko doon xëccool dee te nag ku dee dugg biir bàmmeel daa xam ni foofu dëgg rek a fa ne foofu yàllaa fa ne de lu wax ji bari bari boo duggee biir bàmmeel di nga xam ni yàllaa fa ne <laughs> Seydina Ali moom dafa waxoon ni man kiy fàttaliku dee kooku daf maa yéem ñu ne ko lu tax mu yéem la mu ne moom naka la koy fàttee ba di ko fàttaliku mu ne adduna nag mahallun zailun nee na àdduna béréb la boo xam ne bis day ñëw mu jeex te soo duggee biir bàmmeel rasulullah yi nee na ku dugg biir bàmmeel bàmmeel neex ci yow xamal ne boo dekkee day neex bu la yàlla atte di neex ba keroog ngay dugg aljan waaye boo duggee biir bàmmeel mu naqari xamal ni boo dekkee day naqari buñ lay atte day naqari ba biir safara moo tax Seydina Ousmane daan wax ni man àjjana yéemu ma safara yéemu ma ndax àjjana boo fa demee fekk fa ay nit safara boo fa demee fekk fa ay nit man ki ma yéem mooy bàmmeel ndax man dong maa fay nekk nit ñi buñ ma suulee ba dem ku ne yaa ngay am yaakaar waaye la ma fay nekke maag yàlla rekk ko koy xam du ma ñëwaat di ko waxee te kenn du ma fa fekk moo tax ku bëgg bu yomal xiyaamee sa lépp baax fexee rek ba taqoog rasulullahi del julli ci yonent bi del def lu baax lépp lu bon bàyyi للأنبي الأمانة وصدق وتبليغ فضانا وأثبتا للأنبياء الأمانة وأثبتا للأنبياء الأمانة سيد مختار نون التوكيد بيجي فوفو دي وأثبتا نون التوكيد لا للأنبياء الأمانة nee na naka saxalal bu baax ni yonent bu yàlla yónni rek ku wóor la li ko yàlla yox jottali na ko amul benn yonent bu mos a wor yàlla yàlla ni ko demal wooteel ma mu dem wooteel boppam déedéet ku dem rek yàlla nga wooteel nee na rasulullah yi moo ci gën a wóor li ko yàlla wax yokku ci wàññiwu ci ku mën a jotal la waaye nag fañ ko yam loo rek la yam wa sidqa ab yonent lu mu la dëgg la wa tabliqa amul dara lu mu jenc jotal na lépp waaye nag wal fataana yonent boo gis moo gën a ñaw ci aw xeetam moo ca gën a muus yàlla bu yónni ab yonent day xool ka gën a muus ca dëkk ba mu yónni ko ndax ab yonent kenn waru koo nax waaye kenn ku ci nekk yàlla jox na la ay kéemtaan yoo xam ne moom ngay dëgërloo buñ la weddee nga génne kéemtaan ga lan moo tax mooy nit daa dëgër bopp saa boo ko wanul lu ko yéem rek du la gëm ah. wa xayruhum waaye nag yonent yëpp boo leen dajalee. ka ca gën xaatimuhum mooy ka tëj yonent ya mooy kan mooy Muhammadu mooy borom guddi gii ñuy màggal. ah. Mm-hmm. waxal loolu Ahmed par benn ñu firi ko joxe micro bi mooy lan. xat xussa misbaaxu saalik nee na yonent yi lu ne am nañ ko waaye nag rasulullah xal xussa jagleel nañ ko lii moom dong moo ko am ab yonent musu ko am ñu ne ko lan ak lan laa. bi ru'yati ci gis yàlla bi ru'yati ci toog ak yàlla bi ru'yati ci ay tànkam ni rëkk ci yàlla ba digganteem ak yàlla dara doxu fi wan najmi ida hawa maa dalla saaxibukum wa maa qawa wa maa yantiqu an alhawa in huwa illa waxyun yuuxa allamahu shadidu alquwa zu miratin fastawa wa huwa bilufqi alacla summa dana fatadalla fakana qaaba qawsayni aw adna fa awxa ila abdi ma awxa maa kadaba alfuaadu ma raa nee na kenn amul li rasul moo ko am mooy dem ba toog ak yàlla yàlla wax ak moom yàlla te yàlla amul ginnaaw kenn mënu koo jaare ci ginnaaw te rasulullahi moo ni rëkk ci moom moo tax amul kenn ci diggante yàlla ak yonent bi ku ci dox mu ni wal mi'raaji wal mi'raaji nee na rasulullahi jëmmam moom dong moo mos a jóge ci suuf dem ba ca kaw toog ak yàlla keneen ku mën nga gént waaye jóg dem nag ci sa jëmm ba ca yàlla kenn mosu koo am rasulaa rek a ko am te ba mu yeggee ci yàlla daa dóor tànkam fa kaw daal ni ah tànk mës ta tege fii man ndong maa fi mës teg sama tànk te keneen dootu fi teg tànkam man rasululaahi rek man ndong maa am ñëw ci yàlla keneen amu ko والوسيلة والفضيلة أما القبر بين لواء الحمد سرين مختار آه الله خير يمنا دي kenn ku ne boo dekkee sa jikko drapeau ba loolu lañ cay bind jox la ko boo dëggoo dañ lay jox drapeau sidq ni diw ku dëggu la woon waaye boo daan wax lu dul dëgg dañ cey bind kazaab kii de daawul wax dëgg nga yëkkati ko muy folote koo romb du la laaj yaay kan day xam ni kii moom mooy diw nee na nag am na benn drapeau boo xam ni kenn rek moo koy yor ñu ni ko lan la mu ni liwaawul hamdi bu yàlla dajalee jàmm ñëpp xool kenn ni ko ah, sama jàmm ñëpp yow mii yow yaa am cant gi nee na jàmm boobu kenn rek la bu yowmal qiyaamee moo am ñu ni ko kan la mu ni liwaa ulhamdi rasulullah yi dong moo koy yor mu ni waaye nag yamu ca dee mu ni yamu ci liwaa ulhamdi de mu ni am na loo xam ni rasulullah yi rek moo ko am ñu ni ko lan la mu ne jokk ci yàlla amul kenn koo xam ne mën ngaa yëkkati sa bopp yóbbu ci yàlla te jaaroo ci rasulullah yi amul nee na ku bëgg a dem ci yàlla benn buntu rek moo fi ne buntu boobu boo fa jaarul feneen foo jaar doo gis foo jaar ñu ne ko ban buntu la mu ne buntu rasulullah yi alwasila jokk ci yàlla dem ci sa boroom kenn dong moom moo ko am mooy yonent bi sallallahu alayhi wa xamal waaye amelo bi shafaa al shafaatu al uzma ñu taxaw foofu waaw jërëjëf <laughs> shafaatul uzma am na ñoo xam ni bu yomal qiyaamee seen kaa day critique ndax lanu def safara dong dong dong lañ wan a jëm amul feneen fu ñu war a dem lan moo tax mooy bàkkaar ba ñu def rëy na rëy goo xam ni kenn mënu leen a tiinu yàlla mënu leen a tiinu ab yonent mënu leen kenn dong moo ci mën dara mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñooñu bu yomal qiyaamee yonent bi mooy jël seen dossier dem ci yàlla ñaan ko pour yàlla jéggal leen seeni i mën leen a dugal aljana yàlla mën koo nangu keneen ku dul moom ñeme yëkkati benn kayit wala ngay xamante kooka lan moo tax mooy yonent bi dong la yàlla bëgg lu mu ñaan mu may ko keneen kum sëñ Maxtaar xam nga lu tax doo ñemee dem ci yàlla daa am loo def daa am lu mu def moom yow defoo dara xam <laughs> ngeen saa ngay gis kuy làqatu daa am lu mu def Tijaani ku bëgg borom tariixa bi dafa ñu màggal ko Cheikh Seydi Ahmed Tijaani sa waajo ala Tijaani di wax ñaari ñu ci Cheikh Seydi Ahmed Tijaani am ta xawsul raxiyaasura ku sopp Cheikh na Ahmed Tijaani Chérif yëkkati sama ko ci kaw anta xawsul wa qiyasul wara waaw képp koo xam ne yaa ngi bokk ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bu la neexee nga ni ana muslimun xaqan man julli dëgg nit ki bu jullee suba ba pare war a def wirdam ñu mën koo nangu waaye bu defee wird bi ba pare doo ko fàttaliku ni julliwul suba wird ba day yàqu lan moo tax charia summa al xaqiqa kenn du Cheikh Seydi Ahmed ak ñaari ak taxawsal wa xiyaasul wara Cheikh Ahmed Tidiane Chérif mooy xettali jaam ñi moom mooy ki ni képp ku bëgg sa ruux set sell dem ci sa boroom àdduna dootu la saf nee na demal ci borom tariixa boobu bu la joxee li mu lay jox adduna médd la lay nuru lenn dong ngay bëgg ñu ne ko lan la mu ni al uluwu mooy kawe wa nazafatu set wa zakatu sell lii doogu ngay bëgg cheikh day jëli nit ki ci ak tilim yóbbu ko ci set ànd ak wér yàlla na fan yu gudd ànd ak wér amiin yàlla na fan yu gudd amiin amiin yaa rabbal amiin wallaay <laughs> ah est-ce que <laughs> addiya Cheikh Ahmad Tidiane Chérif wallaay lam yura qatt mooy kenn mas ta gis tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif mu am dara lu mu damm ci sharia bi déedéet lépp loo gis rek ma ngay wattoog shariatul islamiya pour ñoŋal ko pour setal ko pour sellal ko moo tax ku bokk ci tariqa bi ñu di la askanele luñ lay askanele ab tiijaan day bëgg julli ab tiijaan day bëgg set ab tiijaan day bëgg sell lan moo tax mooy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif waxuma sharia mais dafa bëgg ñu mokk trumbux ci sharia doog a dugg ci xaqiqa waaye soo tëbee bàyyi fi a dugg xaqiqa da nga ñàkk xaqiqa te doo am sharia mu ne yow géej nga yow Cheikh Ahmad Tidiane Chérif bil mazaya zaxiru yow kat yaa ngi am ay may yoo xam ni day dotteeku jóge ci géej gi doon ay dus di sotti ko lu waay tër lu waay laal lu waay tànk ci tariqa Cheikh Ahmad Tidiane Chérif nee na tànk nga ay ngëneel anta nuurun yow leer kese nga dara lu lëndëm nekkul ci yow nee na yow de yow yaay aji feeñ ci yow Cheikh Ahmad Tidiane Chérif duuna xafaay sa dara nëbbatuwul ndax làqatuwoo ndax sell anta sirulaay sekkara yàlla boo ko bëggee xam mooy eh adduna yëpp wër xam nañu ne Cheikh Ahmad Tidiane Chérif li ko yitteel moo yitteel mag ñëpp ay taalibeem koo ci gis daa jàng ba mën a yenu xam ba mën a téye doo ko dem songu Cheikh moo tax Cheikh amul taalibe bu ndaw <laughs> taalibe boo gis mu egg fa rek xamal ne daa jàng ba gàkk ba xamatul fu mu jaar mu ñëw pour ñu gàgganti ko moo tax koo gis ci niti yàlla yi buñ la waxee fan la jaar ak Cheikh Ahmad Tidiane Chérif danga naan Cheikh ay mayam moo dul jeex waaye nag ku ne bëtt na ko ku ne song na ko waaye doo mën a jàll saaxil xaw mi ku ñëw bëgg a naan ci Cheikh daa fa fekk ndox moo naan am na sëriñ soo xam ni daananu mën a joxe benn kaas ñaari kaas waaye du ñett <laughs> dañuy gaaw a jeexal waaye Cheikh nee na fu ay jóge mu ubbi la walla sa boroom ubbi la walla rasulullahi sallallahu alayhi wa moog naan ndox moo yam ci moom moo tax Ahmed waaw maam Ahmadou Ndaak waaw xoolal xoolal njàngam mu réy mi mu jàng xoolal li mu wëree xoolal ni mu amee fit xoolal ni mu bëgg diine waa kooku bu demee ba ne man de sama sëriñ sëriñam kooku sëriñam mooy Cheikh Ahmad Tidiane Chérif kon nga xam ni Cheikh du kenn. moo tax Mouhamad.

demal nga jël werd waa bul wax ni werd bi dafa diis damay xaar ba ca kanam lan moo tax cheikh andiwul lu gën a diis charia julli amul dara lu ko gën a diis nee na man sama tariqa bi bañul kenn lu waay baax baax ñëwal fi gën a bëgg Cheikhuna bañul kenn lu waay yées yées ñëwal lu waay ndaw ndaw ñëwal lu waay mag mag ñëwal ñëpp xaj nañ ci tariqa bi te nag li ma la jox bariwul waaye mooy lépp du jël sa temps waaye nag du la dofloo astaghfirullah salaatu ala nabi laa ilaha illa allah waa lii est-ce que Cheikh daf ko créé wala fi la ko fekk ci diine bi rasulullah yi nee na sëñ Ibrahima dafa am koo xam ne day dox ci pont boobu ñuy tuddee siraat sëñ Babacar nee na di dox ba mu yàgg rek mu tarxiis nar a dugg biir safara am jënn jëmm ji waaxu rek ñëw téeku waxat dadahu mu roof loxoom ci mbaggam yëkkati ko sëñ Maxtaar taxawal ko ba mu taxaw mu daal di ànd ak moom ànd ak moom di ko gunge ànd ak moom di ko gunge ba jéggi siraat daan wër biir safara rasulullahi ni sahaaba yi loolu laa gént démb ku xam koo koy yëkkati ka naroon a daanu safara kan la sahaaba yi ni ko allahu wa rasuluhu alam yàlla ak yonentam daal ñoo ko xam rasulullahi ni leen bi mu demee bay daanu assalaatu alayya julli ba mu julli woon ci man ci àdduna wa allahuma salli ala sayidina muhammad alfatixi lima uxliq allahuma salli ala sayidina muhammad الخاتم لما سبق اللهم صل على سيدنا محمد ناصر الحق بالحق اللهم صل على سيدنا محمد الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره المقدار العظيم ولا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أمنا نك صلاة بو خمني رسول الله إننا salaatu boobu moom daf maa neex sëñ Moxtaar yonent bi nee na am na salaatu boo xam ne daf maa neex dama koo bëgg ci sama xol ñu ne ko mooy ban mu ne allahumma salli ala sayidina muhammad annabiyil ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ummi yi boobu ci nekk moo ma neex lool ndax mooy lan mooy koo xam ne kenn jàngalu ko kenn dalalu ko baa te kuy jàng ci moom ngay jàngee nee na tagg foofu la mën a yem moo tax salaatu boobu sëñ Ibrahima maa ngi jégglu de ku nekk ak ay sëriñ ba pare bëgg doon ab sëriñ du sotti de <laughs> lu waay bëgg bëgg mu yomb la salaatu boobu baax na de صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله لي حق قدري الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله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 dañu waxoon suñu jàngee ibnu Mohib ba noppi jox sas aar mu leeral ibnu Mohib bi macha allah def na ko kon li des rek mooy ñu jox kilifa gi mu ñaanal ñu su ko defee ñu delluwaat ca kër ya dallu tuuti waaye maa ngi leen di dénk di dénk sama bopp bis yu mel nii ak xumbaay yu rëy yii eh, léeg-léeg seytaane def ci eh, potoxlu di ci dugg ba tax léeg-léeg ci kër yi ngay seetlu nit ñi di baagante suba ba ngoon bu ñu sàgganee sax duñu julli waxtu juróom ci bis bi mën nañ koo fàtte Eh, te ku ñëw gàmm di faat waxtu eh, ñàkk nga xam ne la war kon lépp lu ñu mën a nekk eh, bu waxtu julli jotee nañ ko bàyyi dem jox yàlla waxtoom woowu te delluwaat ca la ñu nekkoon ki tax ñu daje fii mooy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom buntub xam yàlla ci moom la nekk boo demee ci benn baytiir eh, Sidi Barham Ñas ma ngi koy wax nee na bihi naala kullul anbiyaai manaalahumu bihi ziinatul xadaraati waqir wa azima nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci taaram moom lañu ñu rafetali piip yàlla bu tedd ba taarub yonent bee ko rafal rafetal mu ni kon waqir wegal yonentu boobu wa azima te nga màggal ko comme ni ngeen koy defee yàlla na yàlla may ñu ñu fekke ko at yu bëri ànd ak wér ak tàll ñun suñuy kàddu mat na ndax ibnu mahib bi la te oustaz xaar joxal na ko nañu jox sëriñ bi rek mu ñaanal ñu su ko defee ñu delluwaat ca kër ya ba julli jot ñu julli delluwaat ci yitte yi sëriñ bi yàlla na yàlla guddal sa fan yàlla na yàlla dolli sa wér yàlla na yàlla dolli sa sutura et amuñu sikki sàkk njaboot gi toog ñépp bët yiñ doon xoole waajur wa ndaay sëriñ Talla Xaar bët yooyu lañ lay xoole bët yañ doon xoolee sunu waajur bàyyi sëriñ Ousseynou Xaar bët yooyu lañ lay xoolee bët ya ñu daan xoolee sunu bàyyi Cheikh Tidiane Seck moom lañ lay xoole yaa ngi doon xoole sunu bàyyi sëriñ jaga moom lañ lay xoolee ndax toogaay boobu nga tooge set yal na yàlla guddal sa fan te dolli sa wér yaag eh, soxna Anta ak njaboot gi yépp eh, sunu doom di sunu wëllëre eh, di doom ci sëriñ xaadim Mbàkke ku ku xam ku xam sëriñ Ibrahima xam sëriñ xaadim benn lañu bu sëriñ Ibrahima jógee fii jëm Tuubaa màggal ma nga yow da wàcc ci sëriñ xaadim fii la daan toog ànd kook ñun ca yar ba ca bëgg yàlla ga e, tabaarakàlla ca taar ba wetti li sëriñ Ibrahima tey ma nga foofa ca ba yabal doomam mi ngi ni toog mu ñëw bokk ak ñun bi lu ñu fi am lépp yàlla nañ ko séddoo ñoo ngi lay ñaanal di nuyu sunu doomu bàjjan El Hadj Yoro Diagne ak ñi ñu ko bokkal ñépp di leen sant di leen gërëm di leen ñaanal et li oustaz xaar doon waxtaane léegi mooy fàttaliwaat nit ñi seen diggante seen boroom te fàttaliku sa boroom nitu yàlla yi dund tasawuf dëgg dëgg dëgg dañuy wax sax ni bàkkaar bi gën a rëy mooy fàttaliku yàlla ndax koo wërta fàtte boo ko fàttee def nga bàkkaar bu rëy kon tabaarakallaahu fàttewu leen ko lépp loo xam ni yàlla dëere ne ko ci dajaloo ci mbooloo di tudd yàlla ba fajar la te yàlla déele lépp yàlla nañ ko yàlla defal ci bis bi yàlla na ngeen dellu ci jàmm ànd ak wér fekkaat njaboot ga ca jàmm yàlla def jàmm ci jaww ji def ko ci suuf si def ko ci ndox mi def ko ci garab yi def ko ci jéeri ji ñun ñépp ñu am jàmm di dund ci jàmm ndax jàmm mooy ajjana ñu génn àdduna ci jàmm yàlla na yéex taxaw ci kanamu borom ba ci jàmm mu regle suñuy mbir yépp ci jàmm ñu jéggi siraat ci jàmm dugg ca këru jàmm ga muy daaru salaam yàlla nañu ko yàlla defal yàlla na yàlla faj aajo yépp zahiran wa batinan ñi feebar ñépp yàlla na yàlla wéral leen feebari xol yi feebari yaram yi yàlla xam na yépp yàlla na yàlla saafara ko bi jaahi nabil muxtaar sallallahu alayhi wa sallam kon ñu delloo kàddu gi sëriñ bi mu àggale daal ñaan ñu dellu ca daara muy kàddu sant yàlla nuyu Serigne Thiénaba Baye Serigne Assane yàlla dolli ko wér ak tawfiq te yàlla boole ñu ko e ñaanal yàlla nag suñu góor bu baax nga Baye Serigne Taalaxaar ak maamam yu tedd jëmu jaay maam Ahmadou Ndaat seen leer yàlla gën a wàcc suñu kaw ak seen bëgg-bëgg ak li ñu taataan seen diggante ak seen borom kàddu moom amu fi soxna Anta jërëjëf Seck yaa ngi njaboot gi yépp ak soxna Aminta ak soxna Fatou Touré ak suñu waajur yi ci biir suuf imaam jërëjëf yàlla bi yépp jaageen yàlla fay leen yi mu bari bi jaay rasul sallallahu alayhi wa li sëriñ Maxtaar wax rek kàddu boobu rek ci laay dellu joxe ñaan ci ñu moytandiku di faat waxtu julli gis ngeen nit bu gàntule yàlla comme ni nangul naa la dalay nax ku nangul yàlla nag comme ni nangul naa la nga téye kon li mu yàlla digal nañ ko fonk te téye ko te sellal ko te di ko jooxal ca waxtu dafa am leer boo xam ni bu waxtu julli jotee li fekk yaa ngi koy def ca waxtu suñu borom da koy wàcce bu mu gën tiim yuur yi ci waxtu woowu rek nag nañ ko mën a amee bu waxtu yu jàll rek mu koy joxal kon ñu farlu bu baax ndax kat am na loo xam ni ku ko sàggane loo ni farataal ko du dëgg ci yow kon noo ngi ñaan ci yàlla jigéen ñi yàlla yàlla làmb leen balaa mu sutura góor ñi yàlla yàlla sàmm leen te aar leen te suturaal leen sa xalifa Ndiaye ñoo ngi lay di la gërëm di la ñaanal yàlla bu baax Ndiaye di ñaan ci yàlla mu dolli la sutura dolli la tawfeex dolli la mottali say ambition say bëgg-bëgg te nag ñu fekke ko te tal kontaan nañ bu baax kaddu moom man aw ma lu dul ñaanal leen moom kaddu kër gi moo bi ma jox ma ne ko yëkkati li nga yëkkati rek ñu ñaan waaye nag amul lu ma ci li mu doon rek moo tax ñu yëkkati kaddu guddi gi nag lépp la ci yàlla denc ci wiiw waaye ku xool jotaay bi xam ne am suñu borom denc ci biir yàlla gën a nekk suñu muur ku fi jógee daal taar boo am ci sa xol ak sa yëg ak sa yaram ak sa cofeel ci yeneen ak sa nawle yàlla ko yàlla làq ba dara bañ ko ayibal bi jaay rasul sallallahu alayhi wa sallam mbooloo mi ñun ñëpp ñu ñaanoon sëñ Ibrahima Seck mi yàlla dolli ko xéewal yàggal ko ci suñu kanam yàlla dolli ko wér dama bëggoon kenn ku ci nekk nga jàng fatiha def salaatul fatiha jàng fàllaxi def salaatul fatiha jàng naa si def salaatul fatiha ñu yéene ko yàlla muccal ko musal ko aar ko ak lépp lu bokk ci moom jaare bismillah murtuun yal na ñu jàng mën di am yàlla ci yàlla jiitu luñ mën di ñàkk yàlla bu ci yàlla bokk yàlla may ñu ak wérle may ñu fan yu gudd yu ànd ak wërsëg yu yaatu yu ànd ak jàmm ak mbokk yu déggoo feebar bi ci àdduna bi yàlla na ko fi yàlla jële kenn ku nekk li di sabab yàlla na ko yàlla teg li nga bëgg yàlla la ko yàlla may yàlla ko fan wu gudd gunge ak wér ak wërsëg gu yaat xeex yi ci àdduna bi ak yi ci biir mbokk yi yàlla mi am ndox mu ko mën a fay yàlla nañ ko yàlla fayal guddi gii nag yàlla bu mu nekk suñu mujj guddi ñu fekke mawlidu rasul te yàlla ko wérlal nag ak wérle ba ñu fekkee waat ko ñun ñépp te lu luñ fi jëf ci diggante bi lépp lu ci saytaane na rëkk fi yàlla na ko yàlla fel lu ciy njëriñ yàlla nañ ko yàlla jooxal te fegal ñu saytaane aoudu billahi min asheytan irajim la hawla wala quwata illa billah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 اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أقول القاتل لما سبق الناصر بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار العظيم ولا ولي إذا سجى ما وتعقب الروح قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى أنا أسألك الهدى والتقى والعفو yaa Seydina Rasulullah mbokk ngir daray Thiénaba TV du la rëcc bësal abonné bësal cloche bi ngir lépp nga mën koy am